rek waaw ñu bëri wax nañ ko de. ku dem ba nekk impôt et domaine impôt et domaine quinze de service mosuñu laa jiñ un ak adduna bi ni mu jaxasoo léegi nga xam ne yor xaalis dafa jafe. Hmm. kenn mosu koo woo kenn mosu koo porté plainte amul fa benn jafe-jafe borom xam-xam la impôt et a fa mu nekkoon ku amul xam-xam doo fa nekk. Hmm. du place politique place diplomatie la dafa am xam-xam. nañu ko ñaanal yàlla fi mu jëmale te naa Ousmane Sonko li ma koy ñaanal kay mooy na fexe ba. Mhm. diggante puso ak wëñ bu mu jaar ci diggante ak Ousmane Sonko. kenn bañ a xat seen diggante. nañu fexe ba góorgóorlu mu respecté Ousmane Sonko baax a baax jox ko cëram dañu góorgóorlu jubóo. ñu mën a liggéey xale yi dañoo am ñoom yaakaar de boo gisee ñu jëlee fa affaire nit ñi dañoo am yaakaar ci euh, Ousmane Sonko ak Ousmane euh, kii. Euh, Bassirou Diomaye Faye Diomaye ci mi. Mm-hmm. merci beaucoup. nañu ko ñaanal yàlla may ko wér gi yaram rek. dañu mm-hmm. góorgóorlu liggéey te xaalis bi nga xam ne politiciens yi ñoo ko jël. Mm-hmm. muy waa affaire yi nañ leen audité topp leen jusqu'au bout ñu génn xaalis bi. <laughs> jërëjëf jërëjëf yëpp ñoom ñoo ko dëpp. jërëjëf may aale. muy seen mairie yi ak seen ministère yi xaalis ñoo ko jël ministre bi yore économie et des moo ko wax keroog nee na budget bi manqué na huit milliards ñoom ñoo ko jël. jërëjëf may aale ñoo xaalis bi nañ leen enquête audité leen yóbbu leen ci yoon bañ génn xaalis bi bokkal ko laa la wax. merci jërëjëf jërëjëf. jërëjëf maa ngi la doon wax léegi sa gis-gis ci hmm. toogaayu Ousmane Sonko tey jii foofu ca jam ñaajo macha allah toogaay Ousmane Sonko dañ koy jëfal ñaanal hmm. ko gudd fan ñaanal ko wér. Hmm. ndax euh, yàlla dafa am baatin boo xam ne def nga ko ci Ousmane Sonko ba. Euh, xëy na xel mu rafet ak àndandoo boo xam ne bu sincère bu mm. dëggu ci loo xam ne ñoom dañuy yëkkateendoo doorandoo muy jomaay muy Ousmane sonk képp ku ci war a taxaw rek euh, bëri nañ may gis sa jomaay ci boppam jomaay tam gis boppam ci Ousmane sonk parce que dara ñoru leen lu dëgg mm-hmm. parce que impôt et domaine gis nañ fi keneen ak keneen koo xam ne dañ leen di tudd ci wàllu alal mm-hmm. parce que jaar nañ impôt et domaine leen di tudd ci wàllu lépp loo xamante ni alal ju bari la parce que milliard ministre mayewu ko mm-hmm. président de la république milliard mayewu ko parce que tey Afrique rek la ñuy gis ñoo xamante ni dañuy doon président wala ministre di dawal oto ay millions. kon mu ñu taxee ba Ousmane Sonko nekk ki mu doon benn fonctionnaire Jomaay nekk benn fonctionnaire boo xam ne bu moyen di jaar ay métti di jaar foo xamante ni xëy na. ñàkk-ñàkk dal ko ba ay patriote tey mën nañu wax ne campagne bi ay patriote ñoo ko financé ñu leen di jaajëfal patriote mm-hmm. diaspora bi yëpp man awma seen fay parce que su ma amee satisfaction ñun det mu mën a kontaan tey Mame Marie mm-hmm. tey waa diaspora bi ñoo porté combat bi ñoo jël seeni millions seeni milliards tey investir basiru Diomaye investir Ousmane Sonko pour ñu mën a def tey seen campagne boo mm-hmm. xam ne tey Amadou Ba tey ñoom lii ñu am mm-hmm. jënd seen oto yoo xam ne macha allah di ko campagne kon amuñu lu dul ñoom la ñuy féliciter di leen jaajëfal di leen wax tam nañu gën a yokk seen doole gën a yokk seen def parce que Sénégal mën nañu wax ne xaalis amatu fi ñii waa kër ñàkk jàmm lu fi doon xaalis mooy li bàyyi aala ñaa wax roj nañ xaalis yépp di gas mooy li Kalifone Sall waxoon mm-hmm. donc il faut que ñu woo ko wax bu ko nit waxee comme Ousmane Sonko dañ ko daan woo nañ ko woo mu mm-hmm. leeral wax ñu fan la xaalis dugg mm-hmm. parce que xaalis yi nag bu ñu ko génnewul dina méttit yu lool ci nguur gi dëgg la ñuy nar nañoo liggéey waaye itam sénégalais il faut ñu am patience parce que gis nga kuy naan ngelaw bu gisee caakri jël comme wax ju ñaaw ak yàq la ñu mën lekk nañ xaalis bi séddoo nañ xaalis réew mi dañuy pare nag pour ne jomaa jomaay mënta liggéey wala hmm. liggéeyalul réew mi wala yi def fi dara psychologiquement bépp patriote boo xam ne yaa ngi Sénégal wala nekkoo fi loolu na ko pare psychologiquement pour xeex ak sa noon hmm. sa noon nag mooy sa xel mooy li ngay wax nga nangu ko wala nga bañ ko hmm. donc xeex leen ak seen naf seen bakkan asaka ñun ñëpp ñu porter combat boobu asaka ku nekk mën a muñ ku nekk yëkkati sa doole ñu bañ nangooti fii kenn du fi xoqatal fii mm-hmm. force restera à la loi moo fi amatul mooy sénégalais li ñu doon ñaxtu seen dëgg la li ñuy laaj seen dëgg la li ñu bëggoon mooy dëgg mm-hmm. te dëgg boobu dañu koy bañal ñu koy xeex ba yàlla dugal ci loxoom parce que bu doon doomi aadama doomi aadama mm-hmm. parce que borom yat nag du xeex ak borom fetal maam mari borom yat mënta xeex ak borom fetal moo tax ay bakkan tuur kon am na ci loo xam ne sénégalais yëpp ci war a jàpp dëgg la jomaay teg nañ ko ci kaw Ousmane Sonko tungoom na ko ba mu yéeg ci kaw kon nañu am taxawaay am fulla seere sunu ceinture te xam ne du yéeg tey rek suba mu neex. Mhm. alors euh, du yéeg tey suba mu neex tey tamit dañuy euh, wéy di féliciter rek euh, Ousmane Sonko. moom mi nga xamante ni tey euh, bu mbir mi accès ba fii rek moom la dañ koy daal di féliciter bu baax a baax ba féliciter également euh, patriotes yi patriotes yi tamit jàmbaar lañu vraiment ndax ku ci nekk wala boog histoire Sénégal politique uh-huh, mi ngi doog a am mi ngi mi a koo xam ne yaa yëkkati sa di joxe pour ñu euh, campagne mi ngi doog am sénégalais di génne seen xaalis di ko joxe ndax Ousmane Sonko ku ko xam-xam ne vraiment en 2019 lañ damm ay laafam mm. dàq ko fi nga xamante moo di impôt et domaine donc yenn possibilités yi ci wàllum amatu ko woon euh, c'est grâce aux Sénégalais de la diaspora ñenn ñi nga xam ñoo fa nekk mosuñ liggéey seen alal di ko jox waaw ku nekk xam nga ne nekk diaspora mm, metti na dafa metti mais amuñu seen fay yéen waa diaspora mm-hmm. yàlla leen yàlla taxaw ci bépp projet boo xamante ni ak nu ngeen ko mm-hmm. bëggee ak noo leen bëggee amee seen réussite li ngeen def ci alal nii. Mm-hmm. ba investir fii ba jële fi ñii. yàlla na leen yàlla fulal lool. amiin gëmoon projet bi mais maman tey dafa am euh, mbir boo xamante ne nit ñi dañ koo seetlu muy absence su. Euh, Anna Diamanka bi nga xamante ni mooy euh, euh, soxna Ousmane Sonko wala kenn ci soxna Ousmane Sonko yi ñu seetlu ni teewu fa loolu nag dafa jur polémique nit ñi naan Ousmane Sonko ak Anna am problème wala yu ni mel. xam nga am na loo xamante ni man dama ko xam. Mhm. dama koo xam. mais du ko wax am na lu du loo xam rek wax ko. Mm. gis bu njëkk. waaw ba ñu naan Anna dem na dem na. Mhm. du woon dëgg. du woon dëgg parce que psychologiquement dañu bëgg a wàññi. Euh, Ousmane sonk dañu bëgg wàññi Jomaay Ousmane à ce que parce que c'est pas force pour aana ñëw xadi mm-hmm. ñëw. donc ñoom ñaar ñëpp sax mënoon nañoo bañ a ñëw. donc sénégalais moo bëgg polémique gis nga waxtu bii nga xam ne jokkoor maajoor jokkoor leer bi. Mm-hmm. ak aana dem nag demul aana buy dem ñoom seen yoon du ci nekk nañu bàyyi wax ji ak polémique nga Sénégal. Euh, Mame yi dañoo soxla di ko liggéey. Mm-hmm. nañu bàyyi lii nga xam ne day de réew mi. ay diw dem na diw demul nañu gérer ku ci nekk sa vie. Mhm. ku ci nekk nañu bàyyi Ousmane Sonko mu dund jàmm déjà li mu jël dundam tayle ko. pour sénégalais yi di xeex mu jaral ko léppam te ndax li mu ko jaral nag jaralu ko kenn ah. Mhm. yow ñu sacrifier sa njaboot doo génn sa njaboot du génn doo génn ca wa ndugg sax dañ la koy dugalal. Mhm. kon am na ci foo xam ne bu ñu fa tollee nañu bàyyi Ousmane Sonko ak njabootam nañu bàyyi sénégalais yi ci jàmm. ñu dem focus ci liggéey bi. man loolu laa d'accord loolu moo nekk bu dee dañoo bëgg dëgg dëgg dégg hmm. dañoo bëgg tam xam ne Sénégal dafa war a dem mooy nañu bàyyi li nga xam ne suñu ginnaaw la nekkoon mooy li nga xam ne mooy wax hmm. werante ak wax war naa mën a jàll ca gannaaw te boo gisee ñuy xëcc lool rek du patriote ñuy xëcc loolu hmm. ñeneen ñi ci ginnaaw dëgg te toogoon li nga xam ne dëgg nekk fi ñoo nekk fii ba tey di wéyal seen liggéey boobu liggéey boobu nag ñoom nañ leen ci bàyyi ñu necce ñun ñu continuer focus pour Sénégal mën a dem. Mm, mais Anna Diamanka nag maman waroon na ñëw foofu au moins euh, jàppale ki nga xam mooy borom këram di Ousmane Sonko gisoon. non combat bi ni mu ko tëniree woon. maam Madi man mm. dama bëggul ay wax ay détails. Mm-hmm. dafay tardé réew. boo leen gisee benn waxtu ñu am ba nga fi nga xamante ni fi lañ toll nii. Mm-hmm. Sénégal dafa dem ba benn waxtu lépp ne kàkk ne kale taxaw. Mm-hmm. mooy dañoo dëkk ci wax. dañoo dégg dañoo nekk ci wax nekk ci ci ci ci attardement boo xamante ni fu ñu toll dañuy nekk ci diw nee na jokkoor maajoor jokkoor leer mhm. saagante ci internet bi mhm. fayu tant que mënuñoo dépasser loolu liggéey bi ñu entamé nañu xam ne focus ci loolu parce que lii yëpp forme de déconcentration la mhm. pour Ousmane Sonko wala keneen te Ousmane Sonko est plus fort que ça Ousmane Sonko moo mag lii ñuy wax Ousmane Sonko moo ëpp doole lii parce que aana mënta ñoo fekk si Khady comm deuxième femme ba pare Ousmane Sonko am keneen mu naan day dem am na ci loo xam ne nañu wax ak borom xel yi. d'accord <laughs> nañu wax ak borom xel yi moos <laughs> alors taxawaayu ñaari soxna euh, ñaari soxna ma jël kenn. waaw. Euh, allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi.